mooy waa ji ci boppam moo na ko dërëm daal du turu boo xam ne wax dëgg yàlla soo ko wuyoo ci dërëm ngay yem bàyyi ma jox la ay junni moo taxit moom dërëm parce que ni tey jàpp na ne léegi junni la tudd kon képp ku ko doon wooyee dërëm changé le ba changé le tur ba si sa téléphone tuddee ko li nga xam ne mooy junni Mapenda Seck et ses fils Chérif ñoom bàyyi ñoom Moussa ñoom Mass duni tamit ñoom Mohamed ñoom Cheikh na ak Cheikh Mbacké sans oublier Kenou Sène Chéri Benjamin Ndiaye de la part de ki nga xam ne mooy jinaxu kër gi ñu naan ko Batuli moom ñu ko de passage ñu koy nuyu ziara xalifa Thierno Hamadou Bokar Alpha Ba bu fonde ñu koy nuyu le 28 le 29 le 30 novembre 28e édition bi Sicap Ridis la El Hadj Oubilal dana ca teew ndax sëñ bi wax dëgg yàlla ko am yitte ci doomu aadama la moo tax ñu faral di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom xalifa Thierno Hamadou Bokar Alpha Ba bu Horefonde nuyu nañu Abi Diagne comédien la ci Soleil Levant bu troupe bu ñoom saa neex ca Thiès nuyu nañu Ngone Fall madame Fall euh, nga xam ne euh, moom mooy borom euh, soxna Euh, Serigne Modou Fall ca Kébémer Serigne Abdou euh, Karim Mbacke ibnu Serigne Fallou Mbacke ñu koy ziar bu baax a baax di nuyu tamit Serigne Bara Fall ca euh, yoonu Mauritanie nuyu nañ bu baax ki nga xam ne mooy Yaayu Mbay nekk ca Médina et toute la famille de Yaayu Mbay ca Médina ñu leen di ziare Moustapha Baro Ndeye Ndiaye Baro ñoom ñëpp ñu ngi foofu di am mbégte contanement ci waa village bu ñu naan Yuri Amadou Fofana Bakary Fofana Ousmane Fofana Cheikhouna Fofana Mamadou Fofana Babana Fofana ñoom ñëpp ñu ca village bu ñu Yuri ay bambara nañu waaye kontaan nañ trop ci émission bi nañ ak Ndey Mbayang doomu Kébé ñu ñuy tamit Jama Ndiaye ak Ibou Ndiaye depuis cité comico ca Wakaam moom mooy 24 heures non stop nuyu na leen ay kaddu yu ñaw teg ko ci deru ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf du d'accord benn yoon di jëw nit te Abdou Diouf nga ci biir réew mi day bàyyi ba Abdou Diouf toog mu daal di koy wax li muy wax su defee presse bi daal di koy relier mu liir ko xam ne nag wax dëgg yàlla jëwu ko ci ginnaawam kon ñu seeti ki nga xam ne mooy Moustapha Niass ci tontu yi nga xam ne jëmale na ko ci ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf nekkoon président de la République du Sénégal Moustapha lakk daay ji hey ku lakk daay ji ma ne ku lakk daay ji ku lakk daay ji hey ku lakk daay ji ma ne ku lakk daay ji hey hey ku lakk daay ji man Saalum Saalum laa du jow ndax Saalum Saalum yi ku leen xam xam ne du jow diggante wàqu ngoon a ñooro maamandari diggante fi nga xam ne moom mooy karang Medina sabax ab saalum saalum dëgg du jow xam nga yaa tey boo dee saalum saalum bete bele yaay di saalum saalum baay di saalum saalum loo ragal wax nit ki di nga taxaw woo ko wax ko ab saalum saalum dëgg du jëw maa gënoon mun a topp tontu ko waaye dama dégg na ñëw na ci réew mi depuis dimanche man nag du ma mag boo xam ne damay teesante Abdou juuf li mu wax fii yëpp yëpp yëpp yëpp jëmale ko ci si man dara amu ci maa leen wax loolu lépp ay tappale la ay waxu ndax nga ndax nga sa la lépp ay xadang ci suuf waaye man Moustapha Niasse bés moo bindee livre wax ci diggante Sénégal Senghor ba Abdoulaye Wade liir bi livre bi kenn du ko eggali da ngay dem ba ci digg bi daal di koy dëpp la ma koo xamal bu ma ko waxoon réew mi tas waaye mag. day am sutura xeexu Moustapha Niasse ak Djibo Ka lu jar a ay livre xam nga man ba fi Senghor nekkee bu duloon Senghor moom moom moom moom moom moom moom wàcc na ma bu yàgg Senghor moo ne ma kii xoolal ma ko dénk naa ko man moom lañ ma ko dénk Senghor ma ko teg ci lokom bindu ko lim bind ci livre yëpp ci sagom la demee waaye nag man du président boo xam ne day wax ci ginnaaw di jëw loolu de su ko def Abdou Diouf yaa ngi ci réew mi yaa ngi may dégg man Moustapha Niass maay wax yow li nga bind ca livre bi yëpp yëpp yëpp yëpp dara amu ci xam nga yaa tey diggante wàq ngóona ñooñu maama ndëri wóor na sama soxna si Mariane du ma bàyyi ndax moom fekk na lépp ku ma xam Mariane nga ma xamal moom laa xam moom laa miin nee moo bul tontu ma ne ko damay tontu ndax saalum saalum ko ko jam naa ni ñun du ñu jow du wax yàq der xam nga yaa tey daay ji hey ku lakk daay ji ku lakk daay ji hey ku lakk daay daay ji hey ku lakk daay hey hey ku lakk daay hey hey ku lakk daay ñu bëri woo lañ mën a bul tontu billaahi wallaay taalaay mag laa waruma waat ndax mag du waat ci caaxaan sama soxna si Mariane nga xam ne mooy sama bébé mooy sama bébé mooy sama bébé mooy sama bébé mbëggeel moo na ma demal nga demal nga defante ak moom moom saf saab ma ne ko su ma ko defulee mu ne ma boo ko defulee léegi ma xam ne li mu wax ci yow am na waaye mag day bind loo xam ne moom nañ ko bind loo man bi Senghor nekk fi amul benn politicien bu ñemee taxaw kaw euh, euh, Saalum campagne fa ndax maa fa man Abdou Diouf man damay wax ak moom xam ma yaa tey ana ku ñemee taxaw fii ci Saalum daal may defee amul la ma wax Abdou Abdoulaye Wade barki démb dama koy wax ci bi muy dund ne ko bu reppee benn yoon ba waxati jëmale ci Macky Sall dana dégg lu mus sa dégg xam nga yaa tey des koy sutural yéen may dégg. Mm-hmm. bu baax Abdou nag yaa ngi ci réew mi ma dégg jëwuma la la nga bind ci livre ma yëpp dara amu ci di la Iba Der Thiam wax dëgg la mag bu may amee fula boppam moo ko may boppam mm. du ma bàyyi ba nga dem wala ma bàyyi ba nga toog ma lay jow maa la ko wax la nga bind dara amu man maay Moustapha Niass ku lakk daay ji waay ku lakk daay ji ay ay ku lakk daay ji ay ay bloc naay ay ay bloc naay maa ngi bàyyi ba kenn bind ci livre rek te tàgguma di bind loo xam loo leen di ree lu wax nooy caaxaan maa ngi bàyyi ba kenn bind ci livre rek ci Sénégal te tàgguma wax ma loo xam ne bi ah, def ko ab saalum saalum kenn bu ko tooñ ab saalum saalum gor la ñun namuñu yàpp ndax saalum saalum bu gisul yàpp lekk ndimb xam nga luy ndimb mooy guy goo xam ne day jur ay ay ay ay ay yoo xam ne boo ko toggee cere mel yàpp hmm. ñun namuñ yàpp kon ñun dara yóbbuñu xam ma yaa tey ku la tudaay ji